Euh, complexe ah déet nañu kii rek moom comme ñoom loolu la ñuy wax. Mm. ñu ñëw fii ñu imposer la suñu ay suñu ay suñu ay valeur mu jeex tàkk parce que comme ñoom ñoom moom seen réew mënuñu si daal nit ñoom moom suñu réew. <laughs> ah waaw loolu la di. Mm. Ah, ñu ñëw ci euh, li nga xamante ni tamit moom moo di euh, wàllum rapport. Mm. ak nag gis nañu dem léegi rapport boobu nga xamante ni mooy rapport deux mille vingt deux. Mm-hmm. ñu daal di koy publier ñu tudd ci Mansour Faye ak mbirum Covid bi muy ceeb boobu nga xamante ne ko séddale moom Mansour Faye dinay indi ay leeral ci mbir moom mi la moom nee na amul benn yoon boo xam ne si nii en tout cas of nag ñëw nañu daal di koy euh, laaj ci mbir moom mi la te nee pare na bu ñu ko woowee ci wàllum justice mu dem wuy ji ndax jàpp na ni moom euh, deful dara loo xam ne si nii tey lu ñu koy euh, toppee la moom Mansour Faye moom moo wax lu nu mel tey jii la ko xëtu yëglekaay yu bëree bëree bëri daal di génne Lamine noo jàngate tey cette réaction de de Mansour Faye mu ñu mu nekkoon fi tamit jëwrin ci nguurug Sall. ah di réaction bi nga xamante ne man daanaka euh, bett na ma parce que nee na moom kenn consulté wu ko kenn kii ah. ci rapport bi tout ça ñu jékki-jékki génne rapport bi nga xamante ne épingle un peu euh, sa gestion man je pense que ñi ngi xamante ne ñoo doon rapport ñoo doon bind rapport bi xanaa buñ gisee loolu dinañ ko woo sax au moins mm. pour laaj ko ci tel tel tel tel cas mu jéem a expliqué par rapport à ça mais nga jékki-jékki def rapport ci euh, gestion nit te nit kooku tu pour qu'il vienne s'expliquer par rapport telle autre euh, malversation moi je trouve ça un peu bizarre mais quoi soit rapport yi moom euh, génne na te Mansour wax na li nga xamante ne mooy position te nee na sax moom euh, kenn mënu koo convoqué maanaam mm-hmm. kenn mënu koo convoqué à l'état actuel des choses mais est-ce que quelque part il n'a pas raison parce que tamit euh, def naa rapport dafa am procédure bu mu war a topp yow boo tegul ci procédure boobu est-ce que war ngaa mën a convoqué ki nga xamante ne moom def jëm ci rapport bi tamit je pense que tamit liggéey boobu war nañ ko xoolaat bu baax a baax. Mm. c'est pas parce que on doit sortir les rapports on doit les sortir mais quand même que ça suit un un certain euh, cheminement bi nga xamante ne moom la loi ak texte yi prévoir def naa mm. bu ñu defee loolu kon moom tey ji Mansour Faye du mun a génn di bomber le torse di naan man kenn mënu maa convoqué parce mm. que ñu doon rapport bi dañoo jalgati ci lii jalgati ci lii te effectivement bu fekkente ne loolu am na moom. <laughs> factuelle Donc je pense que bon, on va produire un rapport pour le simple que le rapport a été produit mais par rapport aux poursuites il va falloir que ñu jéem a ci charte yi nga xamante loolu la loi bi prévoir. pour mhm. mun a entamer li nga xamante mooy poursuite je pense quelque part tamit est-ce que c'est pas ce qui retarde li nga xamante mooy doon convocation yi devant le procureur. Mhm. est-ce que parce que est-ce que c'est pas le cas seulement de Mansour euh, les sénégalais s'inquiètent pourtant kii joxoon nañ ne baaraam tuuma il a détourné x milliards te bi léegi il va à ses mmh, est ce que mmh, c' est mmh. pas ça aussi. est ce que tamit les nouvelles autorités n'ont pas mis les charrues avant <laughs> les bœufs tamit loolu yëpp am na donc je pense que avec euh, le temps euh, bu pund bu wëree dinañ am lu gën a wóor ci li nga xamante ne mooy rapport bi ak lépp lu nga xamante ne daal moo tax tey ji coow lu bëri parce que tamit bu ñu jëlee nguur gi ba tey vrai que yàggul. mais milliards yi ñuy détourné <laughs> yàgg na. te bi léegi kenn taxaw ci ginnaaw euh, kanam àttekat pour jéem a expliquer wu. je pense que bu fekkente ne am na benn nit wala ñaar nit commencé woon taxaw sax sénégalais yi dinañ xaw a am espoir par rapport à la suite de la mmh. procédure. Mmh. mais bi léegi affaire bi mu tàggatam bi est-ce qu'on va pas dire on va pas lu xewoon moo fi xewaat rek.

fay mu ne kenn consulté wu ko bi ñuy def euh, rapport bi te rapport euh, ku ne xam ne ni suñu koy suñu koy def euh, ka nga xamante ni moom la ñu la ñu mbir yi soxal ko. Mhm. war nañu ko laaj tamit ci ni nga xamante ni noonu la doon gérer loolu ñu ko dénkoon. waaye ñun xam nga ñun lépp lu ñuy xeex mooy mooy mooy yoon. Mm-hmm. yoon ak yoonal muy la justice mm. ak nit ku manti doon tey même Mahfouz tey sàcc bi nga bi nga ñëw jàpp ko à flagrant délit mm. jàpp ko loxo ci poos mm. kooku sax dafa amee dafa amee présomption d'innocence mm-hmm. léegi nag tey Mansour Faye ak lu manti xew mag lu ñu ko tudd ci mbiru covid yi nangam ak nangam ak lu manti am aussi nañu respecte li nga xam ni moom mooy procédure moom la yoon wax pour que ñu mën ko euh, jël yóbbu ko topp ko ci fi nga xam ni moom mooy yoon bon léegi nag moom loolu la wax nañu xaar Euh, déglu aussi tamit yeneen version yi am nañ benn version fii nii nañu xaar parce que am am nañ ñi def rapport yi ñu ngi fi. Mhm. ñoom aussi tamit ñu génn indi seen version dans ce cas dans ce cas ñun mhm. ñu mën a xam fan lañ ci ñu mën ñu mën a xam fan lañ ciy taxawee. mais mhm. pour le moment su fekkente ni moom li mu wax moom loolu moo am. ñun li ñuy wax tout ce qu'on demande mooy nañu respecter kenn ku ci nekk li nga xam ni moom la yoon santaane ci yow ak mbir boobu noonu bu ko defee. te yëf yi dina mën a yomb quoi aussi mënuñu tëb nag réclamer justice justice comme ça nii mm-hmm. mais justice dañ koy réclamer ci loo xam ni dafay jaar ci yoon mm-hmm. loolu moom loolu la ñu yàgg xeex ba tax ñu jël woon fi ñi nga xam ñu ma fi ne rapport bi nag mm-hmm. ñu ngi ko bañ ko defee 2022 euh, la woon booba ci nguuru président Macky Sall la ñan ñoo fa nekkoon ak ñoo ñu def rapport ñooñu nañu génn tey nañu ña fa nekkoon xam nañu leen nañu génn euh, ñu ñu indi ay leeral ci ci côté boobu noonu est-ce que réellement noonu la demee ndax dañu def rapport boo xam ne respecté wuñ li nga xam ne moo ji leen tey Mansour Faye xëy na dafa génn wax loo su ko defee tey bu dee dañ koy yóbbu coon mais ak nii nii nii tamit mm. koo respecté li nga xam ne mooy ak yelleefam tey euh, jël nga ne koy jaay doole sinon suñ ko defee tamit dañuy taxaw ñu ñu dénoncé ko parce mm. que euh, réewum jaay doole lañ doon xeex ba tey ak si fi ñu si kon euh, moytuñu tamit accepter ak ku doon ak foo manti nekk euh, ngay ñu ñu ñuy continuer ji la ji ji la ji la ji la ji la que mm-hmm. tout simplement euh, la tudd ci mbir wala nga jege woon nguur gi na président Macky Sall et tout pour man mm-hmm. loolu ça doit cesser te dina jeex incha allah te jàpp naa ne ñi fi mm-hmm. moo leen fi indi te dina dinañu gën a veiller ci loolu noonu parce moo tax a veiller pour que képp ku manti doon ak foo mën a nekk li nga xam ne mooy sa droit muy sa ak sa yelleef danañ lu ko respecter respecteel su ko defee ñu mën a dund dans un état de droit et c'est mhm. important. Euh, c'est important euh, Saliou Gadiaga rapport yi tamit yaa ngi koy dégg ah même turu ki euh, nga xamante ni moom moo di Mansour Faye je pense déglu dégg nga ko bu baax a baax turam di ñëw lu bëree bëri ci ñooñu tuumal ne nañu yore woon alal ji ñu leen dénk jaarul ci yoon dégg nga Mansour Faye tam li mu wax moom nee na daanaka rapport boobu dañ koy def amul benn yoon boo xam ne si ni consulter nañu ko ca te pare na fu ko woo wàllum yoon euh, pare na pour dem wuy ji. waaw xam nga Mansour Faye bu fekkee dañ ko dénk. Mhm. moom dafa war a ñëw pour leeral. Mhm. wala ñi nga xam ne bi doon leeral. Mhm. ñu woole ñu ñëw toog. ñu dëgg ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo fi nekk ñoo doon Mansour Faye dafa def nangam ak nangam. te ñoom ñu ngi ak lépp moyen yëpp. du la ñee wàcc nañ yàlla suñu borom dogoon na ko nañ woo xam ñoo nekkoon ñoo defoon rapport bi ñëw toog mais mais du ministre moo koy def. du président yoon moo koy def. Mhm. yoon ñu topp ñu topp procédure bi ba yoon teg ko li mu ko war a teg Mansour moom su fekkee dafa jël ni ñu koy toppee fekkee moo ko def. Mhm. na ñëw leeral askan wi ñu xam. parce que hmm. tamit dañu bëgg mooy bëggatuñ indiwaat ay si réew mi xam nga Mansour moom dafa ne nee na moom deful moom liñ ko dénkoon jaaral na ko ci yoon deful dara hmm. léegi nag euh, am ñoo xam ni tey jox nañu leen euh, en tout cas privilège yooyu noonu prérogative yooyu noonu ñu mën a topp xool ndax def na wala deful hmm. mais bu fekkente ne tamit respecté fi ñu war a jaar pour war ko woon mën a woo pour mu ñëw leeral c'est ça loolu la wax ke moom mooy problème nga ni topp ko ba ni def na ah, nga am yoon yoo war a jaar pour war ni kii a xam nga après pour non moom li mu li mu wax sax li mu wax sax mooy mhm. que ni moom bi ñuy def rapport bi c'est-à-dire rapport mënu moo ko def ci maanaam mënuñu dénk Kébé mhm. waaw def rapport Sunugal 24 waaw. Mhm. man may def rapport ci Sunugal 24. te laajuma laajuma Kébé mii nga xam ne. loolu loolu la kenn mënul la kenn mënul rapport boobu laa doon est-ce que sax am na est-ce que sérieux na rapport boobu. mais en tout cas daal lu si mënti doon. lu si mënti doon nañu nañu bàyyi xel askan wi xam ne dafa am fu ñu jógee. dafa am fu ñu bëgg a dem. Mhm. te instant dañoo def lavage lavage de cerveau. Hmm. mooy li amoon. bëggatuñ mu del ñu del si waat si aussi aussi lu am solo moom tamit ne woon na bu ko gars yi wooyee du wuy ji du wuy ji bon ndax moo tax ma ni nañu xaar version yi ñi dafa nekk état de waxoon la boobu mais loolu mais est-ce que mais est-ce moom ma ko doon gis moom mais man du ma fiyewu ci ay rumeur rek maasu nee na nangam ak nangam parce que mosuma dégg euh, li mu wax mooy que en tout cas seen version bu ñu ko woowee justice dina seen version ñu ngi leen di xaar ñoom tamit seen version ñu génn wax continuer na sànni. yaa may dégg su fekkante ne rapport bi am na suñ ko woowee dafa war a dem wuyu ji yoon. Mm-hmm. lu ko yoon teg mu xam ne lii la ko yoon teg parce moo ko liggéey fii moom lu waaye lu ku nekk li nga li nga liggéey rek ngay am. Mm-hmm. su fekkente amul it ñu bañ kaa taqal si dara ñu seetal ko bàyyi ko mu dem parce que tamit njaboot la. Mm-hmm. loolu laa si gis comme rapport bi. d'accord Mame Matar euh, Gueye Jamra moom tamit euh, sortiem bi mu mujjee def jëm ci wàllum góor jigéen ak euh, Charles Michel mi nga xamante ni moom moo mm. di le président du conseil européen mu ñëw fii Sénégal le président de la République Bassirou Diomaye Faye dalaloon ko coow li bëri woon nag moom nag daanaka def na ci sortie médiatique wax ci xalaatam ñu bëri lynché ko ci réseaux sociaux yi daanaka moom jot nay 72 heures moom tamit comme ni ñu ko ñenn ñi di defee ci réseaux sociaux yi à chaque fois boo waxee loo xam ne si ni euh, dafa euh, maanaam dafa dafa dafa nekkul ak li nga xamante ni wala méngowul ak li nga xamante ni moom la nguur gi fi nekk euh, di def ñu daal di day defal 72 heures lynché la ci réseaux sociaux yi ba nga tooy xepp Euh, Mame Matar jot na wàllam ginnaaw bu mu defee sortie médiatique am boobee. Euh, euh, muy loo xam ne si nii tamit position mu la joxe ah, par rapport ak li nga xamante ni gis na ko ci mm-hmm. visite boobu mu amoon position boobu aussi bi ko Macky Sall defee. Mm-hmm. mais gis nañ li ko ci li ko ci fekk yow noo ko noo koy jàngatee. en fait euh, man c'est par rapport à la à, à position de mam Matar Gueye mm-hmm. président ONG Jamra ki lay gën a appesantiru que li nga xamante ne mooy débat bu mu créé surtout sur les réseaux sociaux je mm-hmm. pense que euh, position Mame Matar Gueye je peux la comprendre à à à, deux niveaux mm-hmm. parce que n'oubliez pas que Jamra avait eu la même position bi nga xamante ne Justin Trudeau ñëwoon na fi <laughs> Jamra génn na def communiqué dénoncé bu baax a baax li nga xam ne mooy teewaayu réew fii ci Sénégal ñu redistribué euh, avec la visite de Henri Michel mais sauf que fii man fu may xaw a je ne sais pas conseiller Jamra xam moom ndax am naa prérogative yooyu am déet mooy maanaam ci li nga xamante ne mooy yàqu visite bi parce que la visite de Henri Michel est s'inscrivait dans un programme bien précis c'était de voir encore les accords diggante Sénégal ak euh, Union européenne te du moment que euh, Jacques euh, Michel Henri moo nekkoon mooy président commission européenne bi c'est la personne indiquée bi nga xamante ne moo waroon ñëw waxtaan ak Sénégal ci li nga xamante

yàqu visite moo ñu gën a amal mm. solo parce que yàqu visite bi ça problème économique la mm-hmm. te ñun Sénégal dañoo toll fi nga xamante lii di économie dañ ko fulaal lu jëm ci xeexu ngóor jigéen loolu dinañ ko xeex yeneen sphère mm-hmm. mais fii fii c'était en fait euh, li nga xamante ne mooy avenir euh, relation entre le Sénégal et l'Union européenne moo doon jéewu te yàlla daa dogal yàlla mooy dogal mm-hmm. yàlla moo dogal moom euh, Charles Michel bi nga xamante ne nee nañ góor jigéen la mais mooy président commission européenne kon bu ñëwee fii Sénégal c'est tout à fait normal que kii di euh, euh, président Bassirou Diomaye Faye <laughs> mais moom lay waxtaanal c'est pas parce qu'il a serré la main à ce monsieur que il est LGBT non loin de donc fii il faut mettre en avant li nga xamante ne mooy yàqu bi mooy maanaam lu tax kooku ñëw fi defe naa loolu moo ñu gën a ëppal solo ko ay débat yi xamante ni nuyu na góor jigéen waru ko def affaire yooyu te jusqu'à présent man mosuma dégg fenn ci projet pour ñuy wax ne ñoom ils sont contre l'homosexualité man mosuma ko dégg nag bu ko ñeneen ñi déggee nañu ko wax mais loolu combat boobu ànd sàmm jikko yi defe naa moo ko doon porté. Mm-hmm. c'est que ànd sàmm jikko yi ils étaient proches. de Bassirou Diomaye Faye mais cela ne veut pas dire que bokk nañ ci ñi ko doon xeex. bokk nañ ci ñi ko doon xeex ah. ah. ñoo la. Euh, ñoom président ñoom président Diomaye ñoom. Sonko Pastef Pastef mais Pastef mënul taxaw publiquement wax ko. Ah, musul musul delloo dana si bu dee. Sonko nee na woon bu ñëwee bu ñëwee loi bi muy njëkk def. waaw boobu mooy li criminalisé jigéen Ah, mais mais bu fekkente ne wax na loolu mais euh, pour le cas de Michel et Henri Michel. Charles Michel bi nga xamante ne ñëw na fi mais loolu visite boobu ça n'a rien à voir avec ça. Mm-hmm. ça n'a avec ça. Mm-hmm. li li taxoon kooku ñëw fi c'était des relations économiques. Mm-hmm. le loolu moo waay moo ëpp solo loolu moo ëpp solo quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. lu jëm ci maanaam xeex affaire góor jigéen nous on va régler ça à notre niveau. mais bu ñu jël ñaari débat yi nga xamante ne bokkul ñu bëgg ko mélanger pour jéem a jaxasee xelu nit ñi donc je pense que man Jamra là ils ont tiré yàgg nañ tiré di atteindre seen cible. mais le chasseur c'est pas chaque jour qu'il tire qu'il atteint sa cible là ils ont pense que aussi c'est c'est c'est l'occasion ñu jéem a un peu leur discours xool seen discours ci yan condition lañ ko war a teg ak ci contexte la war a tegu pour mu gën a am portée tant que defuñu loolu ils vont se mettre à dos une certaine opinion publique sénégalaise parce que déjà ça se voit sur les réseaux sociaux attaques yi nga xamante ne mhm. bu ñu ne Jamra c'est la personne de Mame Matar rek la ñuy attaqué mhm. pourtant Jamra c'est pas que Mame Matar Gueye mhm. Jamra ils un centre culturel je pense ici à am na muy def ci ndongo yi fa nekk def liggéeyam. Mhm. peut-être que Mame Matar moo gën a fës mais Jamra ça va au de la personne de Mame Matar Gueye. Mhm. bu ñu tiiree daal nañu nañu si Mame Matar mais Jamra moom wax dëgg yàlla. Mhm. ñu ngi def liggéey bi nga xamante ne dem na ci maanaam former xale ci wàllu alxuraan former xale ci wàllu valeur yi nga xamante ne ñu ngi ko doon wax léegi léegi. mais Jamra Jamra participe beaucoup à la promotion là peut-être que c'est la personne de Mame Matar Gueye ak yenn position bi nga xamante ne am na moo tax les Sénégalais tirent sur Jamra je pense que loolu la demee. d'accord Kébé yow euh, jàngatee tey Mame Matar Gueye ak sa position euh, Mame Matar Gueye aussi la a eu ses 72 heures ah mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi saf sàpp ci moom de ci réseaux sociaux yi. waaw man euh, d' abord premièrement damay ñëw rek parce que tey Mame Matar man damay rafetlu parce que euh, am na tamit ay position ak ay taxawaay yu am solo yoo xam ni am na ko ci réew mi loolu c'est à saluer. Mm-hmm. te ba tey euh, mi ngi ci continuer des fois nag xëy na am na ci moment yoo xam ni des fois ñu xaw a mélanger les pédales mënu ci mënu ci ñàkk.